الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه bokk jullit ñi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk tënk ci ndigali borom bi azza wa jal di wattandikuloo suñu bopp di leen wattandikuloo lépp ay tereen di jëmale suñu xutba ci benn tomb muy gan gu mag goo xam ne mooy bëgg a ñëw di weeru koor di gan goo xam ne mboolem ñu baax ñi lañ daal ñaan yàlla juróom benn weer la ko jiitu ngir fekke ko waaye tamit ginnaawam ñuy ñaanal yàlla juróom benn weer ngir liñ ci def lépp yàlla nangul leen ko yàlla na suñu def ñu fekke ko te mu kàttanal ñu ba li nga xamante ne bi moom la jullit ga lépp ñu def ko te mu nangul ñu ko mbokk yi ana la ab jullit war a waajale weeru koor weer wi ñu nekk di weeru baraxlu moo doon weeru wàccaay ngir weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf di daan woor lu baree bari ba sax bari lu mu daan woor dañ naan wax da ci dog sayyiduna Usaama radiallahu anhu da ko wax ne yaa rasulallah man de gisuma la ngay woor ci weer yi kenn li ngay weer li ngay woor ci weeru baraxlu mu ne ko weeru baraxlu de weer la woo xam ne lu baree bari nit ñi dañ koy sàggane moo nekk ci diggante rajab ak weeru koor muy weer woo xam ne dañuy yëkkati jëfe jaam yi jëme ci sunu boroom ma bëgg nag waxtu wuñ dee yëkkati sama jëf man bu fekkee ma ak koor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu weeru wi daan teru weeru baraxlu dafa daan soññi ak euh, saxaaba yi di leen jox yitte ngir ñu waajal weer wi nga xam ne weeru koor di leen wax na waxtu weeru baraxlu teerewoo na ngeen di laabal seeni bakkan mooy di tuub waaye na ngeen di rafetal seen yéene ak seenu teewlu ci seen boroom ngir la bu fekkee ne weeru koor ñëw na loolu seen bakkan miin ko tàmm ndax weeru koor dafay weeru woo xam ne léppam yiw la lépp barke la jullit bi kon war koo waajal ci pas-pas bu sell ci ak dogu ci yitte xam ngeen ne jaamu yàlla yépp laaj na balaa moo ñëw nga waajal ko julli bala moo ñëw dangay ngay jàppi wala nga sangu dangay sol yére ya gën a laab rawatina bu dee ajjuma nga sol yére yi gën a rafet te mu weex laal xet bu neex waaye tamit boo demee nga julli ñaari ràkka toog ab biir ba sa bakkan ba lu sam xel génn ci àddina nga doog a jug julli li nga xam ne mooy farata ji hakaza koor tamit dafa laaj waajal ko bala moo ñëw ci sa jëmmi bopp ci sa bakkan ci sa xol ci saw yaram ngir waajal sa bopp ba bu koor day ñëw fekkee la nga yitte fekke la ak pas-pas bu sell fekke la ak xir lool ci loo xamante ne ni lu baax la fekke la akuk cawarte ba li lekk ci koor ci aw yiw nga mën koo màng ana nag moo gën ci li ñuy waajale weeru koor mooy tuub ak jéggalu borom bi tabaraka wa kem li nga xamante ne bii su fekkee ne da bëgg a julli dangay ngay jàpp su fekkee ne dangay ngay bëgg a ñaan dangay ngay jàpp julli ay rakk doo ko ñaan am loo laytaay hakaza koor tamit loolu la laaj kon tuub ak jéggalu sa boroom moo gën ci li ñuy waajale koor ndax ab jaam su fekkee ne dafay yaakaar yiw yi nekk ci koor ngëneel li nekk ci koor yaakaar lu mel ne yàlla am ak jéggal yàlla fexe cee am ci taqwa ba noppi fees dell ki bàkkaar gis gann ci ay bàkkaar loolu da mën a sotti kon ngir nga am tawfiq koor na man a màng li ci nekk ci yiw sab xol sawar ci jaamu yàlla nga amul xër ci lu bëgg lu baax faw nga tuub tuub bu sell sa boroom yeesal sa pas-pas sa digganteek moom ñaan ko mu fekkee la la koor waaye ñaan ko tamit waxtu wu nekk mu dimbali la ba li nekk ci koor ci aw yiw nga mën ko màng yàlla nañu ko defal kon tuub balonte xaq sellal say jaamu yàlla dëggal sa pas-pas ak sa dogu gu wér cëng ngir màng mbooleem lu nekk ci koor loolu moo gën ci li ko xamante ne bi ab jurit dana ko gattandoo koor waaye tamit kontaan ci lool ndax aw yiw la wuuteeg ñi nga xam ne lu ñu gën a jege koor seenu fit di gën a euh, daladi ngir ragal bu ñu ragal koor wala sax ngir ñàkk xam yiw wi nekk ci koor di mel ne woykat ba lam noonu wax naan bu fekkee ne weeru baraxlu ñaar fukki fan yi jàll na boo yeboo na ngay jokkale sag naan bu dégg bëccëg bul teggee ci pot bi sa gimiñ te boo dee naan bul naan pot bu ndaw ndax li dese li nga dese ci waxtu ngiru naan pot bu ndaw mënu koo mënu la cee màndal idan isruuna min chaabana فواصل شربك فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار kooku sikk amul ci ne waajalul koor nëmmul koo gàttanu nëmmul sax mu ñëw mbooleem nag gaaw yu baax yi koor bu daan ñëw dañ koy waajal seen bakkan waajal ko ci seen ruux waajal ko ci seen pas-pas waajal ko ci seen lépp kon dafa yell ci ab jullit mu waajal koor ca mooy tuub jéglu yàlla waaye di ñaan yàlla fekke koor waaye bu ñëwee mu am ci mbégte am ci kontante lool ndax am na pose bu yaatu boo xam ne lim ci mën a am ci yiw mënu ko am ci geneen waxtu waaye tamit bokk na ci liñ koy waajale mooy mu fexe nag ba lépp lu aju ci koor atay koor moo xam sunna yi la moo xam faratay la moo xam yañ ci sopp yañ ci yay yàq koor yay yokk yiwu koor yépp mu fexe ba xam ko ba bu koor ñëwee moom dafay doon koo xam ne pare na ngir màng lépp loo xamante ne bii moo ci nekk ci aw yiw waaye tamit teg programme ci ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ne da ko fas yéenee def bu koor ñëwee la daan jàng ci alxuraan loo xamante ni bi moom la daan naafila mu yokk ko wut ci jaamu yàlla yi saraxe loo xamante ni bi da koy joxe bés bi nekk ngir yàlla ngir weer wi waaye tamit ñaan ak tamit wàññi ak dajeem wàññi maanaa lépp loo xamante ni bi ay caaxaan la lépp loo xamante ni da koy faatal ay waxtoom ci lu dul euh, aw yiw mu fexe ba wàññi ko ragal lool lenn koor ci maanaam lenn lu nekk ci koor ci aw yiw di ko faat fàttaliku ne am na daaw ñoo xamante ni bi woroon nañ fekke woon nañ ko ca ren ji fekke wuñ ko te fa ñu nekk ku leen yeewoon tey yi seen bët yëpp mooy ñëw koor fi doon da sax benn bis la ñu delluwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kuy tukki de teel a jóg da nga fa ngay jëm te ñun ñëpp dañuy tukki fa ñu jëm nag mooy aljanna ajana marchandise um yàlla la moo xamante ni mu cher la fa man xaafa adlaj wa man adlaja balaga almanzil ala inna silata allahi gaaliya ala inna silata allahi aljanna yàlla ñu yàlla ko defal kon mooy bu baax a baax bàyyi xel bu baax a baax posé bii nga xamante ne bii am na ko ca mooy fekke koor nga xam na am na ay mbokk jullitam yoo xamante ne bi fekke wuñ ko seen wet yépp mooy euh, fekke ko ca faat na waaye tamit bu santaat yàlla bi ñu ko fekkee ci aw ci ak wér te man mën a woor ndax am na ñoo xam ne fekk na leen fii waaye duñ ca mën dara ca képp ko wér wéradee ngi lay xaar képp kuy dund dee mu ngi lay xaar kon wér gi danga nga ko war a euh, profitoo dund gi tamit da nga ko war a profitoo am-am bi da nga koo war a profitoo comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne na ngeen juróom ci juróom ab jullit war naa xam ne posé bi mu am bi gën a foor ci ak dundam mooy fekkee weeru koor ginnaaw nag su borom defal na la nga fekk ko ren ca xamuloo déwén ci ñuy dund ngay bokk wala ci ñuy faatu kon rikk waaye jéem a la euh, farlu ak góorgóorlu ba màng yiw bi nga xamante ne bii moo nekk ci koor yal na yàlla defal ñu fekkee koor ay yoon yoon yal na yàlla kattanal ñu ñu mën koo taxawee nañ ñu ko digale ca mu nangul ñëpp wenn yiw ba ñu cee faat yal na yàlla defal ñu def ñu ay julit yu mu xibtal ci ñu jaamu ko ca mu nangul leen seenu jàmm te xaru leen aljanna